nee nay dolli ku di wéy rek di gën a jëm ca kaw rek nee na nii rek. mbokk jullit yi mbokk taliba yi asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu ci ndigalu Serigne Touba Serigne Mountakha Bassirou Mbacké xalif général des Mourides yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér ci kilifteefu Serigne Abdou Latif Diène xalifa Ndiène Serigne Ibra Khoudia Mbacké xalifa Serigne Cheikh Ahmadou Ndoumbe Xaban ak Serigne Souhaïbou Diène xalifa Serigne Bara Diène Serigne Cheikh Diène coordonnateur journée culturelle Mame Cheikh Issa Diène ak membre yi jamiyatu tawdi wa nasri li in jazati Mame Cheikh Issa Diène ñoo am mbégte di yëgle journée culturelle Mame Cheikh Issa Diène bi ñuy amal dimanche fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru mars 2022 ca CICES salle unité africaine thème bi maam Cheikh Issa Diène ak liggéey di xidma muy édition bi ñu darajale ko Cheikh Ahmadou Ndoumbe Xaban marraine yi soxna May Diène moom Serigne Issa Diène ak soxna Bali Mbacke Muntaxa ñu di ci fàttali ko ko ñaanal Serigne Abbas Mbacke Daaru Muxti Serigne Cheikh Mbacke Daaru Rahman Serigne Sidi Mbacke Aliou Serigne Ibrahima Diène Ndand Serigne Cheikh Mbacke Aliou Serigne Cheikh Jëmb Fall xalif général de Baye Fall Serigne Abdoulahad Diène Soaibou Serigne ànd Baye Modou Diop Sicap Mbao ak Serigne Massamba Mbaye Mbegere ñu di ko yëgal njabootuk Serigne Touba gépp Mbàkke ak Mbusoobe rawatina njabootuk Cheikh Ahmadou Ndoumbe Xabaan mbooleem cheikh yu yoonu murit rawatina cheikh yu kër mam Cheikh Issa Diène mbooleem ci biir réew mi ak bitim réew ak mbooleem di ko yëgal njiitu réew mi son excellence El Hadji Macky Sall ministre de l'intérieur Félix Antoine Diome Mohamed Boun Abdallah Dionne ministre Aly Ngouille Ndiaye maire soxna Mimi Touré société civile bi opposition bi di ko yëgal Serigne Cheikh Mbacké Abdoul Ahad Serigne Mouhamadan Mbacké Abdoul Ahad Serigne Sidi Nardiène Cheikh Binta Kane commerçant Serigne Saliou Abdourahmane Khabbane Serigne Khadim Mbacké Fass Serigne Cheikh Astou Mbaye Diène Serigne Makhtar Diène social Damba port autonome bu Dakar Mbaye Touré commerçant ci Touba Mor Adj Sénat assurance Abdou Diagne Transvie Cheikh Anta Kane commerçant El Hadj Wagan Sen Belel Travel Service Mbaye Gueye EMG Dame Ndiaye commerçant ak Modou Mboub transporteur bés bango ñeenteelu édition journée culturelle Mame Cheikh Issa Diène dimanche ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru mars 2022 ci 6 salle unité africaine ñu ñaan ci barke borom bés bi di maam Cheikh Issa jenne ak la gën ku fa teew daje fa la gën asalaamualeykum taala wa